jangeen jëf mbokk yi ci seen kóoluteef ak ànd ak ngeen ànd ak les programmes de la 7TV télé bi ñu niru ba noppi di ñu dajale ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax a baax ci aljuma ji tey di leen wax eh, juma mu baax ak dal leen ak jàmm ñu tàmbali nag ñaareelu pàcc eh, matinal Allô Sénégal fas yéene ko door ak jotaayu xibaaru suba si dañ ci ànd ak Grégoire Ngom Grégoire maa ngi lay nuyu. fay naa loo baax Aïcha la ziyaar naka si mbaa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax a baax. allah ma bàyyi la nga daal di ñuy wax li nga xamante ni moo gën a fës ci xibaar yi tey ci suba si Aïcha jëm na nag ci gouvernement bi janook xibaar yi démb ngir fësal dogal yi nga xam ne jot na ko jël mu ñeel rek wàññite fukk ak dund bi loole tax na nag askan wi ñu ci bëri daal di ca joxe seen nag gis-gis ñu ñu ci bëri jàpp rek ni jéego la rek donte sax njëg yi mënoon na rek gën a yomb ñoom ñëpp daañu leen teelu ci la jotaayu xibaar Aïcha ponk baa ngoog jërëjëf Grégoire mbokk yi ñoo ko déggandoo boo leen taaxirloo léegi-léegi bu bàkk bi noppee ñu ànd ak Grégoire Ngom yi bokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen ci seen ab teewlu ni ñu ko junjee rek la ñu koy door rek jàppale nag ni jamono ji euh, nguur ak senegal jël na dogal wàññi rek loolee di njëgu ko dund gi bokk na ci nag lu tax jamono ji rek ONG Otra Africa daal rek xam ne ni loolee euh, dañ koy rek mën a ndokkeel ndaxte jéego la boo xam ne gouvernement bu bees bi mu ngi koy def bu ñu sukkandikoo rek ci Souleymane Aliou Diallo jonte sax jamono ji njëg yi mënoon nañu ko gën a wàññi lu ni mel daal mën nañu ci rek am yaakaar. yaakaar naa ne même bu nekkee dërëm la wala ñaar dërëm la euh, lu jara euh, mbégte la donc euh, lii lu njëkk la xam naa ni ñu ngi liggéey ñu ngi si tànk yi ñu ngi saytu ñu ngi càmbar xoolaat nal fan la ñu jaaraatee ba wàññi yenn yi lii nag jumtuwaayu yi njëkk la nañ ko jàppee nii xoolee ko noonu rafetlu ko même bu nekkee dërëm lañ si wàññi sax wàññi la Euh, yaakaar nañu nag euh, wàññi boobu war nañ ko mën a sentir si kër yi euh, lu ci munti demee nag nañu jàpp ni que dund bi cher na Sénégal dund bu cher la et ñoom bu ñu leen di fal li ñu leen falee mooy nañu jëm a xool nan la ñu jàppalee sénégalais yi ba nga xam ne seen dund dina wàññeeku dëgg-dëgg loolu lañ leen falee Biram Khoudia Lo euh, bokk nag ca baruga Pastef moom tamit jot na cee joxe gis-gisam jàpp na nag ne jamono ji wàññiteefu ko dund bile doon na nag ab tontu ci lépp loo xam ne daal ñoom jotoon nañu ko waxtaanee jamono ji ñuy amal ab campagne électorale ñu teewlu ko. lii ñu euh, jëf ni muy wàññi prix denrée alimentaire yi nekk na lu nga xam ne lu am solo la ci dundu Sénégalais yi bu ko kenn xeeb première étape la. xam naa ni ñu ngi waxtaan waxtaan yoo xam ne mi ngi jëm ci gën a wàññi dundin bi. ak dund bi ba nga xam ni ku nekk di nga gis sa bopp ci Sénégal parce que ñoom loolu mooy seen credo kon promesse électorale la woon tey def nañ ko mu doon lu ko xam ni vraiment Sénégal yëpp ñu ngi koy saluer euh, di wax ni étape la boo xam ni jéego la bu ñu demee dañuy dem yeneen jéego jëm ci yeneen jéego parce que kat ku bëgg diminuer prix yi comme il le faut il faut nga mën a dundal sa bopp réew bu fekkee lépp daf koy jëggaani dafay jafe pour mu may wàññi ay prix naan bis bu ñu faloo rek ku mel ne Ousmane Sonko wax ko fu bëree bëri ne bis bu ñu faloo rek ci bis yu njëkk ci weeru njëkk dañuy wàññi njëkk yi kon li doon xaar si ñoom mooy yow ñu def euh, wàññi wàññi bu gën a yaatu lii parce que tey boo ko xoolee dafa am lu ci leerut am na prix ñox wàññi nañ ko boo jëlee ceeb bi dafa mel ni 350 mooy prix homologue bi commerçant yi koy xalaat ñoo ko yéegaloon kon ñi daanaka dafa mel ni wàññiwuñ dara mais nga jël mburu mi par exemple te li ñuy jaaxal mooy dañ naan na ñoom dañuy bàyyi ay droit de douane ak ay taxes jël kàddu gi jébal ko askan wi ñoom tamit jotoon nañ ci rek joxe seen ak gis-gis lu ñu doon xaar la rek bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi jàpp nañ daal ne dundu gi lee nañu ko doon jënde daal métti woon na lool ci seen ak poos ñeneen ñi sax jàpp ne tamit yëf yi mënoon na rek gën a oyof waaye am nañ ci rek yaakaar ci li nga xam ne moom mooy li ñu jot a tàmbali. ceeb bi cher woon na ah, ah, dawlin bi macha allah marché bi moom boo demee moom ndugg sax doo ko laal bu dee wàññi nañ ko nag moom sant yàlla la. ndax ñun mère de famille ñun ñoo dëkk ci maas bi ñu dëkk ci mbedd bi xam nañ li xew ci biir dëkk bi suñu ko wàññilee loolu tam suñu arrangement lay doon ndax ñun loolu dañoo sonn ndax góor day xëy dem ñu ñooy def ci biir kër gi instant yi ceeb bi seer na soo waroon sóor ñaari kilo dangay soor kilo liibar ndekki rek frère añ soog a ñëw moo tax kër yu bari léegi ñaari repas te bu njëkk ba ñetti repas lañ daan def añ reer ndekki mais les kër yu bari léegi ñaari repas la ñuy def ndax boo dee xool dangay ngay liggéey sax parfois boo weer bi dee mais boo xoolee li ngay gagné ci sa place boo calculer bénéfice bi ngay am du ko mën li ngay jënd ceeb fi nga koy mën a am sa dooma sa doom feebaree li nga koy faje fi nga koy mën a amee léegi bu fekkee yow mënoo jaay loo xam ne mën naa fay place bi ak sa kër bi nga luyee waxaguñu sa lekk sa dundu kër kon problème am nag xam nga ñun daal ñoo ngi kontaan ci Diomaye ak euh, Sonko koo wàññul luyaas wàññul ko dund rek lépp day baax si moom waaw mu mën a fay école xale yeeg yooyu yëpp dëkk bi dafa metti ceeb ak diwlin kooku moom ku ko wax ku ko waxul ñëpp la sonal. dina dimbali njaboot yu bare bare bare bare ndax jaboot yu bare bare bare bu ñu tàngalee bu ñu toggee añ ndaane la ñuy tàngal reer kon bu ñu wàññee lool rek daanaka li ëpp doole ci eh, ndimbal bi daanaka ñëw na. donte gouvernement bi wax na jàppale nag ni ay laaj ak i tontu dox na rek ci lu ni mel rawatina rek laaj yu bëri yu jëm rek ci gouvernement bu yees kile ndax Bassirou ay Faye ak i naataangoom jamono ji def nañ nag lu gën li nga xam ne rek moom la fi Macky Sall wala bokk ab Wade daal di def ci wàññi teef kile bokk na ci la ñu sàmp na ngi ne ab laaj ñu ànd ceeg Papa Banda Gaye fii ci Sénégal daanaka wàññik njëg yi la muy am ci diir bu yàgg bëriwul la ci atum 2012 ginnaaw nguurug Abdoulaye Wade régime bu président Macky Sall amaloon na wàññi ko njëgu yenn ci denrées alimentaires yi loolee amoon daanaka benn weer kepp ginnaaw bañ jëlee nguur gi gouvernement ba woon daal di ciblé woon ñetti denrées ceeb suukar ak diwlin. kilo ceeb ordinaire jóge woon ci 325 francs dem ba 280 francs mu di woon wàññu 45 francs di juróom-ñeenti dërëm ceeb bu parfumé jóge woon ci 475 francs wàcc ba 435 francs di woon wàññi ko ñeenti dërëm njëgu kilo suukar jóge woon ci 690 francs wàcc ba 580 francs di woon wàññuk 110 francs dawlin moom jóge woon ci francs wàcc ba 960 francs di woon wàññik 240 francs di ñeent fukk ak juróom-ñett waaye diggante 2012 ba 2024 daanaka njëg yi daal dina bëri lum soppeeku ba ci weeru juin bu atum 2024 kilo ceeb mu ngi doon jar 450 francs kilo suukar di jar 650 francs litre dawlin di jar 1200 francs kilo mburu di jar 175 francs waaye ñaari weer ginnaaw bañ jël jo jomaay fekk ay ñooñam amal wàññik ñeent ci denrées alimentaires yi di ceeb suukar diwlin ak mburu kilo ceeb ñu wàññi ci juróom-ñetti dërëm kilo mburu ñu wàññi ci ñetti dërëm liitaru dawlin 100 francs ak kilo suukar juróomi dërëm mu di wàññi boo xam ne ci gis-gisu ñenn ñi bëriwul waaye di jëmal conjoncture bi fu mu toll ci jamono ji ci àdduna bi bu ñu sukkandikoo ci boroomi xam-xam. waaye ci xibaar yi wax ci leneen bokk na ci jamono ji rek euh, lu jëm ci wàllu njiit lu yees li nekk ca télévision du Sénégal di Aminata Malika Sarr démb amaloon nag ab doxu nemmeeku fi ci suñu màkkaan daal di fi daje ak mboolem personnel bi rawat na njiit la di Maimouna Ndour Faye jenn ba Omar Sow mu nekk ab visite de courtoisie bi nga xamante ne day marqué retour fi lépp commencé ay at ginnaaw bi mu demee directrice générale TDS bu bees bi daal di rek ñëwaat si biir 7TV Aminata Malick Sarr daal di rek justifié li waral mu daal di choisir bi le groupe. li nga xamante ni moom mu bët euh, suñu tànk yi ñu indi tey fii nii ci 7TV bokk na ci. ki nga xamante ni mooy euh, jëmm jii di madame Maïmouna Ndour fay nekk mag ci ñun euh, nekk benn référence euh, ñu nekkoon tamit ndongoom mën naa ko waxee noonu ndax ñëwoon nañ fii doon fi def stage mu formé ñu lu bëri jàngal ñu lu bëri li nga xamante ni tey jii xam nañ ko as tuut ci secteur média kon tey jii war nañ ko mën a ñëw gis am yaakaar tamit ci moom bu baax ci mu jàppale ñu ci suñu liggéey. bi les visite nekk na occasion bi nga xamante ne directrice générale bu 7TV Maïmouna Ndour Faye daal na rek ñëwaat ci attente yi média privé yi am ci télédiffusion bu Sénégal. donc c'est une période de tension c'est une période très difficile où beaucoup de choses nous tombent en même temps euh, sur la sur la tête euh, alors on, on prend Aminata daal di xam ne ni ko xam na enjeu yi koy xaar te nag mu fas yéene relever défi yi. donte nag euh, yëngu-yëngu am na ci euh, milieu euh, ci biir presse ci milieu taskatu xibaar yi waaye am nañ yaakaar ni lépp na saafaraw dégg nañ yi nga xamante ni moom lañu dénk te jàpp nañ ni aussi am na jéego yu ñu war a mën a teg ngir saafara lépp lu nga xamante ni rek mooy ay jafe-jafe ak yooyu. am nañ yaakaar bu baax ca wàllam présidente directrice générale bu groupe 3M universel Maïmouna Ndour Faye daal di rek rafetlu bile visite te nag mu daal di woo kii jiite TDS SA mu wëyal bile initiative ngir rekk mën a togg ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu média ngir mën rekk rek dëgëral diggante bi ñu wax ci jawriñ bi gàlloo lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk ci El Malick Ndiaye moom ma nga woon nag démb ca baruk garage bu boo maraîcher ngir rek daal di seetlu wàllug njëg yi nga xam ne jagleel nañu ko rek dem beeg dikk bi rawatina rek ci jamonoy tabaski bi ak lépp loo xam ne daal def na ko negeen yi diggee ginnaaw nag ba mu dalloo loolee di taxi à gaz foofee ca baruk Thiès Moussa Mané lañ ci àndal.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 jërëjëf Moussa Mané mu ngoog mbokk yi nag fi la ñuy jaar yëkkat si bile jotaayu xibaar Aïcha mu mel ni les ponk la ñu waroon rek waal di faram-fàcce ci matinal bi. jërëjëf Grégoire ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci xibaar yi xanaa nga des ak ñun ñu utalee tuyenekaay yi daal di xool ñoom itam li ñu xëy fësal tey ci suba si léegi lay doon mbokk yi bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi. ci mu ngoog ñu utale tu yéenikaay yi xool li nu xëy fësal tey Grégoire ban yéenikaay la ñuy tàmbalee tey